ay xale ngeen ah seen avenir mi ngi ci kanam mais amu leen amu leen amu leen pas-pas pour mën a yor réew mi maanam pareegul joma yi mii ma gis pareegul pour mën a yor réew mi li doon waxante ci ay kàddu moo tax jubawul danoo yaakaaroon bu demoon ci Ablaye Wade di def partenariat mooy lu ñu séddoo mais Sénégal du gâteau Sénégal du gâteau ba ngeen koy séddoo moo tax trouvé wuñ terrain d'entente ak ki nga xam ne moom mooy président Abdoulaye Wade mi ngi nii El moo ko bind léegi lu leen wax gëm leen ma Ablaye Wade du ànd ak ñii PDS du ànd ak ñii trouvé wu terrain d'entente parce que da séddoo bi ñu bëggoon a séddoo partenariat bi mel ne Sénégal gâteau la wala ay morceau de foie da ngay jël di daggate di joxe di joxe. dem nan Ablaye Wade ne leen jumay mi du Ousmane Sonko li ci Ousmane Sonko nekkul ci jumay jumay bëriwul pour yor réew mi nii la kaa bi demee El Malick Ndiaye bind na ko léegi lu ma leen wax dee leen may déglu kàngam laa du ma waxantu wasalaam.